Tëngéej gis ngeen ko ñoo ngi nii si marché Tëngéej comme ni ñu koy defee ñoo ngi suñu rubrique Rio Actu tey dañoo ñëw si marché Tëngéej parce que démb men nemmeeku fi benn jàmmaarloo entre policier ak certains marchands ambulants tey dañu ñëw xool lan moo waral jàmmaarloo ak nan la euh, marchand ambulant yi dundee déguerpissement bu ñu leen déguerpir fii si marché Tëngéej ñu ànd ak Xalifa ñu dem xool nu mu demee. maire Fatim nan nga gisee maire bi nu mu leen teggee fii nii. ñu sonal ñi rek nit ñi kenn amatul loo ku xëy ku jóge sa da ngaa bàyyi say mbokk ak say ndey ak sa baay war a wut si loo liggéeyee di ko yóbbu say mbokk ñu ne la doo liggéey nga xëy war a añ war a reer war a ndékki munoo am loo añee munoo am loo reer munoo am loo ndékki te marché bii ca sunuy maam ba ci sunuy maamaat nii lañ ko fekkoon ku ko fi bëgg a jëlee nag rek yàlla jëlee la fi. waa maire bi moom wax dëgg yàlla lii mu def moom ñun ñi nga xam ne ay marchand ambulant commerçant lañ ànd nañ ci lii mu def ni muy trottoir lii muy yëkkati nit ñi nii. ndax fii ku ne xamoon ne marché bi dafa metti woon trop ñu toog yaa ngi dégg salte woon na wax dëgg yàlla doy na waar ndaxte man tëngëj laa fi laa juddoo yaroo fi màggee defee fi lépp mais problème bi lenn la mooy tax moom bi mu ñëwee ne dañ dañoo yëkkati ñun ñëpp nangu nañ yëkkati ànd ak moom ci li mu def bi mu deferee ba nga xam ne pare na suñ soñoon mu may ñu ñu lal sës ndax ñun loolu lañ bëgg trottoir bi dëgg la moo ko moom route nationale tali bi moo ko moom mais ñun ay jaboot lañ dañuy xëy di takk suñu ndigg di liggéey investir lu ñu yóbbu suñu njaboot yi moom moo ñu tax a jóg ñu bëggoon rek mu dimbali ñu rek te yàlla tax may ñu lal sës ndax ñun kenn ku nekk yaa ngi logé wala nga nekk di liggéey di sa njaboot yaa ngi nekk di takk sa ndigg di investir lu mu metti trop ndax instant bi moom sonn nañ nag fa sonn yam baak Seydina Muhammad sonn nañ sonn nañ trop trop trop ndax ñii nga gis ñuy xëy di tongtongaan ci marché bi boroomi njaboot lañ kenn ku nekk yaa ngi am sa soxna sa yaay ak sa papa sa yëpp te yow yaa ko yor yéen ñii nga xamante ne ni xale góor yi seen jigéen di ngeen dimbalitul ke benn jigéen ñun ñooy dimbali suñu bopp ñu bëggoon nag lenn lañ bëgg mu may ñu lal sës loolu lañ bëgg te moom ñaan ku xëy ama kenn xamul foo jëm boo xëyee yaa ngi buntu place toog fa di xaare yàlla pour mu dimbali de lañ bëgg non ñun rafet loolu ñu ko quoi day mel ni dañu beddi day mel ni bon duñu ay sénégalais day mel ni bon ñun sant suñu bopp si dëkk bi mais nga yëkkati nit amoo foo ko teg loolu warul ma a nekk quoi ay naa leen jox fële loo xam ne amul plan tegul première paie amul centre commercial amul dara loolu dafa métti quoi nit ki soo koy yëkkati nga xaarloo ko deux ans wala trois ans lan lay lekk lan lay naan tey jii lu doon plan mu jël xool gars yi nu mu leen ñu bàyyi diggu tali bi di leen corrigeloo suñu paree ku nekk xamul li nga am fële mais nit ki soo ko yëkkatee deux ans nga laaj ko caution après centre commercial bi su la ko joxee sax moom après lay def si place bi wala deux ans yi sax mënu si fa lay jëlee lu mu lekkal lu mu naan dafa métti maire bi na xool lu muy def lu muy def nii man gisuma ni loola war a mën demee xëy booy war a liggéey fii entreprise la fii xam ne baadool yi fii la ñuy gisee seen bopp ku am cinq mille da ngay liggéey jaaykatu mbuus bi day gis boppam fii la ñuy jotee seen teraanga kon war nañu mën a xool bu baax lu ñuy def bu ñu jël seen doole bi leen affaire guur yàlla rek moo dul jeex nañu yërëm gaay gaay liggéeykat lañ ñu duñu sàcc duñu fen mais bu ñu jël de jaaykat yëpp ay jaaykat kat la jaaykat du sàcc xëy ñu sampal la demee nii ah mel ni ay ay agresseur am na boo xam ne suñu dugg koso si la ñeen dugal koso si ci lii la ñeen di dugalee koso gars yi nañ xool lu ñuy def gars yi bëgg nañ liggéey nañ jàpp tey jii maanaam xam na ne tey jii maanaam am na yoo xam ne duñ duñ ne yoon la duñu le mais ci situation oblige moom daa am fu mu ñu yóbbu na bàyyi ba mu pare bu yóbbu ñu fa mais suñu fekkee dafa ñu toog deux ans ne day ay centre commercial pour yóbbu ñu fa de marché kenn du ko dugal ci centre commercial centre commercial lay wax marché lii nii fii ñaata jeunes ñoo fi nekk di daan doole bëri na mais na xool moom après deux ans ñun nan la ñuy lekk lan la ñuy naan dañuy toog deux ans ay jeunes war a liggéey temps bi di dem mais la bàyyi ba foofu pare. délégué bi nan la gisee déguerpissement boobu. ah jërëjëf ñu ngi lay siyaare baax a baax euh, di nuyu mbooloo mi yëpp képp kuy seetaan euh, ñu ngi koy siyaare di ko jox wàccuwaayam euh, manaam ni ko defee dafa ñaaw. ndax am naa doole mën naa ko dama koy def te la ma ci gën a métti mooy moo bi wax il faut ma sacrifier leen sacrifice dafa dafa doy waar boobu doy waar la sax boobu la moom dafa war di dimbale néew ji doole yi waaye war leen néewal doole ndax la waxoon ak li mu indi wax dafa ute daaw daf dee indi la may indi waxtaan ñu dem ànd moom ci biir waxtaan mu dellu indi doole te loolu du cëram kilifa da ngay yemale njaboot gi yëpp mais di fat sa doom di doo doomu jàmbur loolu avancé loo réew kanam li ko wax yomb na nga may gars yi set si miir bi si magasin yi bàyyi digg mbedd mi am na fu ñuy dugal mu koy defar bu pare ñu jug dem fa bii fay chaque fin de mois ñu fay chaque fin de mois ba mat waaye jël marché bi yëpp daaneel mbaar yeeg jëgg di ñëpp ne waaye xam ne dem yàq bagage yi jàmbur yi nga xam ne sax bàyyi xamuñ ni def ba am ko dañ waxoon niñ laal bagage mais instant bi ñu ngi laal ay bagage ñu ngi jël ay bagaas mais moom est-ce que woo na leen waxtaan. oo nañu waxtaan di wax xelam waaye suñu xel nanguwu ko waxtaan mooy ñu boole ñaari xel yi ba juboo ci kàddu waaye waxtaan boo xam ne yow sa xalaat nga ñuy wax di ñu avertir rek lii laay def may julli nga ne mayuma leen dara loolu waxtaan amu fa. mais dañoo gis population Tëngéej bi ñoom en général dañoo d'accord ak li bi def mais parce que dañoo ne yéen en général ñu nekk fii di jaay ñoom dëkkuñu Tëngéej loolu dëgg la wala dëgg. waaye loolu population Tëngéej bi kenn àndu ci li may def nii li nga ko waxoon mooy ñi jaay kat yi sës diggi mbedd bi ñi bàyyi ko oto yi di dem nit ñi di dem loolu la ko population Tëngéej sant mais santuñ ko mu tes marché bi yàqu ko fii ñëpp fii lañ dëkk man mi wax yow fii laa dëkk keneen ak fii la dëkk. kenn waxul bu mu defar mais ak ni ñu koy defaree digg mbedd mi ni mu leeree nii gis nga ko oto yaa ngi dem nit ñaa ngi dem est-ce que yàqal nañ dara ak mbedd mi est-ce que yàqal nañ dara ak doxkat yi na bàyyi gars yi sës liggéey boo projet boobu muy wax da koy defar bu tabaxee ay air plus 3 am mu yóbbu gars yi fàll mais lii dafa métti li nga xam dafa yor a kër yor këram toppatoo ay njabootam njaay la ko yaakaar nga yëkkati ko ça fait 3 mois presque. nga doog doo jaay dafa am fu ma lay yóbbu te foofu pareegul kenn xamul kañ lay pare projet boo xam ne tegaguñ xeer waaw guñ si kañ lañ fay dem léegi da toog di xaar projet bi na bàyyi jeunes yi liggéey munu leen jox liggéey ñoom ñëpp marché bi la gars yi am ñu ngi daan seen doole di defar seen waay yaay di defar seen njaboot yi ne leen bàyyi ñi daan seen doole digg mbedd yi moom ñun d'accorduñ kenn ku ci lal d'accorduñ benn puus puus taxaw si digg mbedd bi di xatal yoon bi nañ bàyyi yoon bi nu mu féexee nii ñu bàyyi ko nii mu féexee nii mais jaam yi ñuy lal sës bu defee nag Sénégal jëm kanam Fall. maire bi daal xam nga moom moom moom lu mu def première défaut bu mu njëkk a def mooy jëkkati nit ki te avatiroo ko dafa ñëw laaj ñu suñu ay pièces quarante ñu photocopie jox ko ko ndaxte boobu doon xool ñu fi leen dëkk wala ñu dëkkuñu fi. ba mu demee ba liggéey li mu liggéey ba xam ne fii marché bi 100 pour cent kenn dëkku fi mu ñëw jaay ñu doole jëkkatuñu par la force ba tax na démb fii sa gars ñu ngi doon jàkkaarloog policiers yi ba ay recommandations génn te lépp mën naa ñaax te loolu lépp fëtu fëtu maire bi la nit ki ay ki bu na moom moo falee d' accord nañ euh, euh, liggéeyal mais tamit yow ñu ngi ko ñu ko ñu ngi ko seqal jox leen cër nga woo leen waxtaan ak nga mu trouver solution parce que xuloo xeex baaxul garab la nga as sa dagg su toog waxtaan sax moom la moom mujj mais maire bi lu mu def moom toog ko fenn toog ko fenn ay borom kër fi nekk ay responsable fi nekk te marché bi ñu fi dund moo bari ñu fi dund moo bari jaaykatu añ bi jaaykatu gerte caaf bi jaaykatu ndox bi ñun commerçant yi tey client yaa ngi ñëw seen xaalis ah mais mënuñoo jënd parce que gisuñu lu ñuy jënd bi taw ñu policiers yi ku yëngal ñu jàpp tey jii am na neuf personnes yoo xam suñu dañ leen a defeere tey. mais mais mais est ce que c' est responsable toog nañ waxtaan ak maire suñu responsable moom lu ñuy gëmloo mooy dem na préfet waxtaan na ak moom ñëw ko fii ak lenn di leen solution mais tamit xam nga ñun ñu nekk si terrain bi ñun ñun ñoo mën a xew lu xew moom day toog parce que souvent tamit ñoom ñu ñu jiital bu ñu demee ñoom dañuy jiital seen intérêt personnel ba mu ëpp par ak ñun ñu ngi si terrain bi ñun xam ñun ñoo naaj bi suñu kaw dee tàng taw bi suñu kaw suñu moom kaw taw ñun rek ñoo mën a wax loo xam ne xew na mais ñoom bu ñu demee dañu négocier ah, dama xool seen poste ñu duufee pare nañ si mais sànq ba ñuy def doxoon may ba wax population Tëngéej bi dañoo ne en général ñu fiy nekk dëkkuñu Tëngéej loolu dëgg la wala dëgg dëgg la loolu man dama koy ko parce que man mii di wax ak yow man ma tënk laa wax moom moom laa doon wax si commencement bi mais am na ñoo xamante ni ñu ngi fii ki toog doomu Tëngéej la ki toog doomu Tëngéej la mais nag 100 pour cent boo xoolee bu nekk 100 pour cent 95 pour cent yëpp dëkkuñu dëkkuñu loolu la xam moo tax mu laaj suñu ay pièces 45 dama leen ba pi ba pièces yëpp mu xool xam ne ñii dëkkuñu fi mais nag c'est force mu gën a ñu fi. mais loolu tamit loolu man tamit loolu baaxul. Sénégal dépassé na ki doomu Tëngéej la ki doomu Guédiawaye la ki doomu Pikine la Sénégal dépassé na loolu démocratie ñu suñ koy wax ñun ñëpp ay citoyen la ñu ñun ñëpp ay nation Sénégal la ñu yor mais nañ dawante yërmande suñu biir ñu xam ne ay ndaw lañu ay responsable lañu dañoo yor soxna ñi fi nekk ay borom la lañu te ñu xam ne réew mi ëllëg suñu loxo la mujj parce que tamit fii nii ku fi mën ta wàccee conteneur ñun marché ambulant ñoo koy génn mën kaa jox population bi kon da ngay gis ne ni ñu ko wàccee ni tôt tard suñu loxo mujj ñu jël ko di ko jox population bi comme ñun nañu jox cër ñu respecté ñu te xam ne fii nii lépp lu waay bëgg tey jii Sandaga kenn dematu fa grâce à ñun lépp lañ lépp lu am Sandaga am na tëngeej grâce à ñun kon transport ñu yombal na leen ko mais kon nañu jàppale ngir yàlla warul suru ñu bàyyi ñu liggéey xeexu ñu xulóowul ñu jàmm lañ bëgg ak liggéey dimbali suñu ay waajur ak suñu ay njaboot ñu ne mettiwul ñun fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi si dëkk bi waaw maire bi bu fekkee day yàq marché bi sax utal ñu feneen fu ñu dem sax xam nga ñu ne waaw comme ki fi nekkoon xam nga dañ fi yéegati yóbbu ñu genre feneen nu ñu koy da kursu ba waaw ñu nekk foofu noonu di door waa di jaayante affaire yooyu noonu liggéey rek lañ bëgg a saaju ñu fene ñu jaay ñu dorog agressé wu ñu te pourtant mënoon nañ ko di ko def booy kay def bu ñu fit gënuñu ñu réew xam li ma la mais ñun liggéey rek la ñuy def liggéey instant bi ay safee ay deux mois ngi ni liggéey dañuy xëy di taxawaal ay lañ waaw démb démb gis nañ fi jàmmaarloo bu am jàmmaarloo boobu lan moo ko waral. ah boobu nag man fekkee wu ma ko wax dëgg yàlla waaw li ma wax xam rek laay wax. léegi léegi eh, eh, maire bi est-ce que daf leen dig teg leen feneen wala daf leen ñëw rek génne. déedéet dégg yóbbuñu fenn génne yóbbuwul kenn fenn def na rek lay bu kenn lalata nee na déggante fii géej géej daal gu taxawee fii di seen géej loolu la wax. mais mais dañoo gis ne population Tëngéej bi. ñoom dañoo d'accord ak affaire bi lu maire bi def ba pare dañoo ne ñoom xaaj bi yëpp yéen dëkkoo leen fi da ngeen jógee feneen ñëw di fi liggéey. kenn dëkku fii ñun ñu yow dëkkoo fi man dëkkoo fi keneen dëkku fi ñun ñëpp dañoo ñëw rek di faraatu si kenn dëkku fi dañoo ñëw rek def yaakaar ñëw fii di liggéey waaw. waaw jàmbaar yooyu moom xale yi xale yi la rek yëfu xale lañ ndax ñun ñi nekk ci marché bi di liggéey depuis boobu ba léegi xuloowuñu xeexuñu kenn ku nekk boo xëyee yaa ngi toog sa place xale la rek ma ndogal ñu si. mais neexuñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi suñ sañoon kenn du yëngal kenn du indi benn problème dañuy toog xaar yàlla lu yàlla def ñu xam ne loolu la mais nag lii ñu def nii ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi rafetlu wuñu ko suñ sañoon loolu du am rafetlu ñu dëgg yàlla. xam nga tey jii maanaam booy am na su ñoo xam ne mënuñu xaar ñoo xam ne 100000 francs lañ yor di si xëy di si joxe dépense su jeexee lan la ñuy dundee booy dañuy mujjee fipp am na su ñoo xam ne policiers yi jàppaleen yóbbu leen duñ ko bañ ndax suñu leen policiers yi jàppalu leen banque mooy ñëw jàppaleen yóbbu leen ndax ay bor lañ jëm ay pere est-ce que yaa ngi sóor loolu booy bi nga xam ne dafa bàyyi seen waa kër ñu war a lekk war a naan affaire da koy jaral lu ne asum la fii gaar yi canaliser booy dalal leen mais am na ñoo xam ne du ñu mën a déglu ndax problème bu ñuy xëyee seen kër ñoom ñoo ko mën a xam mais fii nii amuñu fu dul fii lu tax booy di jël ci gaal di dem booy di def lu nekk yu mel nii moo tax da nekk sa dëkk war a fa liggéey ñu lay xatal nañ organiser d'accord nañ organiser mais tamit nañ bàyyi booy tafu liggéey waaw loolu laa gis daal. laaj nan ngeen gisee déguerpissement maire bi def à marchand ambulant. salaamaaleykum maa ngi ziar waa Rio bu baax déguerpissement bi euh, bon métti na avant tout métti na métti na parce que ay jeunes rek gis ngeen tey bi ngeen li ngeen fi romb yëpp ay jeunes ak ay maire yoo xamante ni ay soutien de famille rek fi nekk waaw mosuñoo teg ataaye fii mosuñoo fi teg ataaye mais jaaxle parce que suba ba léegi soo téyee benn jiin sax wala benn tubay sax ñu ne la bàyyil wàññil fekk du yoon ñun la jóge fi policiers yi jaay la teeng yaa ngi gis ñi ngi nangu bagaasu jàmbur yi di dem te nangu bi yëpp dara warulu ko loolu rek maa tey lu ma neex laay def mi ngi noonu maa tey lu ma neex laay def te fekk loolu moo warul parce que fii yërmande yàlla moo fi nekk dëkk bi doxul ñëpp xam nañu ñëpp gis nañu Sénégal dafa metti ñëpp gis nañu Sénégal dafa metti yaa ngi comprendre ñëpp gis nañu Sénégal dafa metti mais démb gis ñu jàkk am benn jàmmaarloo bu am na moo war a jàmmaarloo. non c'est xam nga gor gor kenn du ko topp bu mu sës foog foog ñu ñeme ko parce que tey mënoo fekk kii fu mu toog. jàmmaarloo yooyu si man la njëkk tàmbalee samedi bi fii nan ngay ñëwee fekk nit mi ngi tëdd si ay bagages gisula sax nga ñëw ngay foqati bagages yi mu tëdd yi mais balaa ci loolu su amee yow da ngay jóg fipp parce que sa moromu góor la nii yow quoi ñoom nag ñun mënuñu leen wax dara parce que ñoom duñu leen yónni mais seen i seen i njiit lu ñuy waxal ñoom xam nañu njiit ñi njiit ñi muy maire bi muy muy muy muy. Euh, muy maire muy muy préfet muy euh, muy commandant bi ñoom ñoo lal lii te lépp si maire bi la jógee n'est-ce pas donc moom la ñuy waxal ñun say doom lañu say rakk lañu say soxna fi nekk ah, ak say ak say papa sax ñi ngi si biir groupe ñi ngi si biir marché bi affaire bi metti na te mënoo xam nu mu méttee parce que yaa ngi toog sa sa sa salle yaa ngi toog sa bureau clim baa ngi lay upp yaa ngi dégg naka waar mais ñun lu ñuy dund ni jamono jii xamoo nu mel. ñun ay soutien de famille lañu ay soutien de famille na nga xam loolu nguur nguur ak population ñoom ñooy demalante te saaf ja jàmm dafa war a am gouvernement comme ni ko benn kilifa waxee woon gouvernement kenn moomu ko nation bee ko moom chef gouvernement bi ñoo fi nekk ak peuple bi ku ci laal moromam gaañu tey jii bu baadoo la daloon ci nguur tey foog góor ñi sonno góor yi nag mooy waajur yeeg mooy ñeneen ñeneen am na ñu ñu defeere am nañu defeere mais ñan ñoo si son waajur yi ñoo si son ak ñun ñi nekk fii nga xamante ni ku nekk day koloo ku nekk joxe lii kii joxe lii kii joxe laa ah ñun ñëpp tey fii suba am ñun yóbbu ñi génnee nañu xaalis joxe pour ñu jàppale leen parce que métti na góor buñ ko koppee bu mu sës day métti man day métti ñun ay sénégalais la duñu ay seer du ñu ay sœur foog loolu foog mu foog foog foog ñu xam loolu duñu ay sœur ay soutien de famille lañu ñu ngi fii nag tëngéej tëngéej lu ñu dëkk am na si ñoo xam ne ñu ngi jóge te te lu si gën a garaaw si marché bi naa la wax ñu bàyyi loolu xel fii ay taalibe daara dong fi nekk ay taalibe daara ak ñi sëriñ si yar ñoo nekk fii nañ dimbali nit ñi nawet tey su jotoon léegi-léegi dangay gis ñenn ñoo xamante ni dañuy delluwaat seen dëkk dem bàyyi ji donc lu ñu tax ñu ñëw fii parce que dëkk bi dafa dëgër tey Sénégal bu mu daj dakaar rek nga mën a amee yeneen dëkk yi mënoo fa am dara parce que lépp mi ngi dakaar yaa ngi donc kon ñu ñu yërëm ñu yërëm jaamu yàlla yi ñu xam ni fii yàlla moo fi nekk yërmande yàlla nag mi ngi fi te nu ñuy yërëm jaamu yàlla yi man lool rek laa leen di wax salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar bu baax. ok ah. comme euh, nii lañ ko daan defee chaque jour suñu émission Rio Actu tey nag gis ngeen ko ñëw nañu waxtaan ak marchand ambulant ñoom ñëpp joxe nañ seen point de si déguerpissement bi. nii la nag mais na maire bi woo leen ñu toog waxtaan parce que fii nii nit yi dañ fi nekk di daan seen doole sàcc ñu agressé wuñ defuñu dara ay doomu réew mi maanaam comme ni ñu ko waxee am na ñoo xam du ñu ay doomu tëngeej mais ay doomu réew mi lañ Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nii rek lañ koy defee ah ñoo ngi àndaloo suñu caméraman bi kii di xaaf ah Pape Zo ñu ñëw présentateur bi ñu ñëw may leen dëkkal leen nii ñu ngi leen jaajëf